رليت أن المولى تعالى لشي ربا فؤادي وأخناني وأكرم بي ربا بيا غنيت اليوم عبد اللوبي خديما دواما للي شفتارو إبابي قد خنيت اليوم أبدا بشجري وأبي يقوف الآن ونار وسبا نبت لخالي الله mbokk yu tedd yi ni déglu te dañuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono jii ci pàkk bu sell bi muy ngaabu jàkkaarloo ak sang bu sell bi moo du Mayloo xalifa sëriñ Hamzatou Lo mu feggoo ak mbooleem njaboot gépp feggoo ak magi taalibe yi seen xel dana war a dem ci bis bu màgg bis bu barkeel bisub alquran bisub cosaan waaye bisub fàttaliku jàmbaari lislaam joo xam ne léppam xaadimu rasul la muy sëriñ Hamsatu Lo bis boobu nag di bis bu ñuy woote ci ndigal ak ci kilifteefu sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbakke xalifa général kullu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu xànd ak wér yaram sëriñ Mamor Mbakke xalifa sëriñ Masamba Mbakke ak mboolem njabootu sëriñ Masamba Mbakke gépp sëriñ Cheikh Mbakke xalifa sëriñ Mahmoudan Jobbe ak mboolem sëti sëriñ Masamba Mbakke yépp Serigne Bara Touré xalifa Madina ak mboolem njabootu Serigne moo Fati Touré gépp bis boobu ren war doon gaawu fukki fan ci weeru décembre deux mille vingt deux yemoo ak fukki fan ak juróom ci weeru wolof Serigne Modou Mayloo ginnaaw bu mu ci jotee ndigalu ay kilifaam mu koy yëgal mbokk yi xarit yi soppe yi wëllëre yi am di jàmm yi bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di xam le ne bis bi bis boobu fonk la mook mboolem njabootu Serigne am Lo gépp ndax mooy bisub ki leen boole ci xaadim rasul bañ man a liggéeyal Serigne Touba Serigne Modou May Lo nag fonk gu mu fonk bis bi moo tax mu feggoo ak i rakam feggoo ak magi taalibe yi tànn ab délégation boo xamee ci fas yéene nañoo yëkkati kàddu yi woote ak soññee jëmale ko ci bisub Serigne Hamsatou Lo boobu ñu fas yéene amal fii ci Ngaabu dinañ jëkk a kàddu gi Serigne Cheikh Ndioba Lo mi nga xamee ci mooy yëkkati kàddoom ci turu mbooleem njabootu Serigne Cheikh Lo Hamsatou gépp bu ñu àggalee jébbal kàddu gi Serigne Cheikh Bousso Lo mi nga xamante ni mooy woo mbokk yi waaye mooy wax nag ci turu mboolem njabootu Serigne Ibrahima Maguette kan gépp bu ñu àggalee jébbal kàddu gi Serigne Moustapha Ndiaye mu yëkkati kàddoom ci turu taalibe yi bu ñu àggalee nag jébbal kàddu gi sëriñ Abdou Karim Lo mi nga xamee ni ci mooy wax ci turu setaat yi ndax ku nekk xam na ni setaat yi. saa bu ñu nee suba la dinañ fi amal waxtaan wu am solo woo xameen fii nañ fi dajale mbokk yépp waxtaan ak ñoom dagg leen ci wàllu taalibe incha allah Serigne Abdou Karim loo dina ci ñëw bu ñu àggalee nag jébbal kàddu gi Serigne Dame Lo mi nga xamee ni fii mooy wax ci turu moo du May Lo xalifa Serigne Hamzatu loo kon ñun ñëpp ñu maasee jébbal kàddu gi Serigne Cheikh Ndiobo Lo mu yëkkati kàddoom ci turu mboolem njabootu Serigne Cheikh Lo Hamzatu gépp bismillah ahonsu billah bisimillah inna waliyallah ma tawfiq illa billah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalu sëriñ Daam Lo xalifa sëriñ Cheikh loo xam sax ak sëriñ xaalim Lo xalifa sëriñ Abdul Karim Lo sëriñ Daam ne ngi woo mbooleem rek koo xamante ne si bi nii askanoo nga ci sëriñ Cheikh ak noo ci askanoo rek mu ngi la ci woo ci màggalug Ngabou Sankaye googu mi ngi woo mbooleem koo xam ne wëllëri nga koo xam ne wëlërante nga ak moom ak nu ngeen wëlërante rek mu ngi la ci woo yëpp rawatina nag euh, mbokki taalibe yi nga xam dañoo aju ci kër Serigne Cheikh Lo ak euh, kër Serigne Abdoul Karim Serigne bi nee mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn te képp koo xam yaa ngi dégg kàddu gi jàppal ne mooy sa euh, carte invitation ci moom jàppali ne mooy ndaw li ñëw ba ci yow yëgal la magal googi rawatina nag dongay laxasaa yi ñu tuddee leen Daaru Salaam sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali bis bi di leen ko bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax ñu am ci mi ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax ñu dikk ci Pastef bañ ci daa ñëwee sëriñ bi ne daal képp ko xam yaa ngi dégg kàddu gi rek mi ngi la ciy woo bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn nag di ñaan ci mbaaxu yàlla ko maa gépp ko koo teew rek sunu borom faj say aajo saahir ak baatin barakaati seexul xadim aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifatul am Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan yàlla suñ borom yàggal ko fi te wéral ko noonu lañ koy ñaanale mboolem xalifa général yi ci eh, réew mi yëpp di leen ñaanal fanu gudd wànd ko wér di yëkkati nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxo xalifa Serigne Amsatu muy Serigne Modou May Lo noonu la ñuy siyaare itam sëñ Moustapha Lo xalifa Serigne Ibrahima Lo di yëkkati kàddu yi ndigal kàddu yi soññee eh, ndax bu ngeen gisee jataay bi seen xel war naa dem ci bis bi nga xamante ni bii moom moom lañ daan woote muy màggalu Ngaabu Sànqaay eh, ñu di leen ci woo te di leen ci séentu eh, ñu yëkkati itam kàddu kër Cheikh Ibrahima loo di ko yëkkati ci turu Serigne Amsatou Lo xalifa Cheikh Ibrahima Lo moom Serigne Amsatou muy woo mbokki jullit yi di woo mbokki taalibe yi di woo xarit yi di woo soppe yi di woo am di jàmm yi bàyyiwut kenn nee na daal képp koo xamante ni bii wëllëreem nga wala nga mu maslaa laa lebal lu baax wala nga war koo fay nee na bis bii daal la am amul lu dul bis bii lu ko waaye di lebal wala nga koy fay mi ngi koy séentu ci bis bii ndax amul lu ko ëpp amul lu ko gën moom loolu rek la am ndax loolu kat mooy li nga xamante ni bii mooy ciir bi Serigne tuubaa joxoon suñ maam mu doonoon seenu bunt ci Serigne Touba kon mi ngi ci séentu ñëpp. te di leen ci woo te ñaan yàlla képp koo xamante ni bii ñëw nga ci wala nga def ci saw ñàq yàlla na nga dajeek ngërëm la nga xamante ni bii moom la ci Serigne Touba déele woon ci bis bi yàlla bu la ci kenn ëppule ah noonu itam njaboot gi eh, sëñ Fallou Lo nga xamante ni bii mooy jëwriñam topp ci moom ak sëñ Modou Kouré Lo ñoom ñëpp rek kenn ku ne yaa ngi woo say soppeek say xarit ak say am di jàmm bàyyi woo kenn ndax ñoom day nee nañ amul lu dul lu du bis bi kon ñoo ngi leen ciy woote di leen ci séntu. noonu it la ñuy wooye magi bi yi nga xamante ni bii njabootu kër gi lañ foofu fi waay mën a nekk bis bii de ñu ngi la ci woote di la ci séntu ah, bëgg nañ ñëpp teew ji képp koo xamante ni bii teew nga ci yàlla na sëñ Tuubaa faj say aajo ah, kon ñooñu buñ tuddee sëñ góor mag sàmb rek daanaka dañ ak baay sàmba jabaay dañuy yóbbaale taalibe bi yëpp rek kon ñooñu ah, ñu ngi leen di woo ci turu jëwriñ yooyu nga xam ne ñoo leen jiite di woo di soññee di woote ci turu mbokk yi mbokk yi nga xamante ni bii ñoo ñoom ñoo bokk Serigne Amsatou itam ñoo ngi leen di woo ñooñu nag bu ñu tuddee Serigne Bara Touré eh, daal di tudd sëñ Modou Mbacke xalifa Serigne Cheikhoum sëñ Modou Faty Khary ak njabootug sëñ Cheikhoum sëñ Modou Faty Khary yëpp ñu ngi leen di woo te di leen ci séentu te di leen xamal ne leen seen bis bi nga xamante ni bii de seeni waajur yemalewu ko woon ak dara bis ba delsi na ñoo ngi leen ci woo te di leen ko fàttali di ci siyaare Serigne Khadim Mbacke jëwriñ jëwriñu kër ga. Euh, noonu itam la wooye ñi nga xamante ni bii ñooy euh, autorités yi nga xamante ni bii ñoo ñoom ñoo bokk tund wi muy euh, maire yi nga xamante ni bii ñoo ñoo séq tund wi kon suñ ci jiitalee Serigne Mouhamadou Demba Diouf commune Dala Ngaabu ak Serigne Bara Seck Taïba Cekkeen ak Serigne Cheikh Bara Gueye Daaru Naim dañuy yóbbaale yeneen communes yi ci des yëpp ñu ngi leen ci woo te di leen ko yëgal te di leen ko fàttali Euh, nyon len kou yegele item responsabol politik, yon yon khamen teni bi, nye geche rejon bi ak da part sama bi. Nyon yon item bunjou djouke le minister galoba, ak depite yifinek, kon galor denye manajotal, nyon yon item sene evitasyon, depite yifinek, yep khamnen sentur. Mannen len elim, waye nyon met bunjou de galor, ek galor dekou adelinti yobale, kon nyon men nying lenti wote, edilinti sonye. Diti woy etem responsabol yifinek, yep parti yifinek, yep sene responsabol, nyon lendi yegel bisbi, edilinti sentur. di ñaan yàlla daal ne leen daal ñun amuñ lu dul bis bi ngaabu daal amuñ lu dul bis bi képp koo xamante ni bii fonkal nga leen bis bi jàppal nga leen bis bi yëg nga leen daal ñoom ci bis bi lañ koy xame te ku leen ci yëg itam euh, daal ñu xam ne yëg nga leen ndax itam am na loo xamante ni bii mooy ñëw te itam bëgguñu su suñ xewlee li nga xam ne amuñ lu dul moom duñ leen gis te bu ngeen amee seen bëgg-bëgg di dër dëree di di di fi ñëw di ñu sonal loola moom gënaluñu kon daal ñu ngi ci sàkku teewaayu mbokki jullit yëpp teewaayu murid yeb di ñaan yalla dal kep ku fi teew yalla serigne touba Tuubaa facca wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu والسلام على رسول الله صلى الله barke borom touba barke Seex Amsa barke cheikh Amsatu mbokki jullit yi talibi ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen nuyo ci bes bu ñu ci bak bu tedd te bu serigne modou maylo mi Lo ñu tàmbalee nak nuyoo bi ci cheikh mohamadou muntaka khalif général ku lu murid ak ci ndigalal sëriñ mamor mbàkke mom cheikh massam mbàkke ak ci kilifteefu serigne cheikh mbàkke mom cheikh mohamad ak sëti ak njobootu cheikh mohamad jobbe mbàkke gépp bisub ngaaba nak mo jublu ci ñi wax nak ci turu magi taale bi yaakar kal cheikh am satlu serigne ndam nak neena kep ko xamanteni yaakar nga ni serigne cheikh lu am satu moy sa jëwriñ ñi nga lay wo ci bis bobu nga xamanteni mi ngi wara a fukki fan ci wéru tubab wala doon fukki fan ak juroom ci wéru waraf loolu nag mooy bis bi nga xamante ni sëriñ Touba joxoon na ko Cheikh Amsatou mu di ko màggal ni ko nag dee ko def bis bu ne soo ko mën nga di ko def ay bis bu ne soo ko mën nga weer ko fi weer wu ne bu xatee ba xat nga jàpp ko bis at ba te bu mu jéeg kon defe naa ba màggal gi tàmbalee ba léegi mbas mi fi amoon lépp du di mës te jéeg moom màggalu nga moom kenn mës a dégg at mu mu jéeg bis boobu nag moo dëgmal si sëriñ bi waxoon ne nag képp kuy fanaan ba set mel nga ni bis bi nga juddoo ci ñàkk bakkaar bàkkaar moom kenn ñàkk ko kon dëkk yi dëkk yi wër ngaabu yëpp màggal gaa nga noonu Serigne Moussa Ka dafa bindoon wax ni diggante day sango ki laa ba ngaabu see xam sa too tax du ñu lay ak malaaka war nag waa day sango waa laa waa ngaabu màggal gaa nga noonu yéen ko moom Serigne banque yi woo ñëpp bokki taalibe yi yéen nga ni ma ne Serigne Ndam ne mi ngi lay soññ woo kaddu ñu yëkkati ko yëkkati ci turu Serigne Ibrahima Jooje mi nga xamante ni mooy yor kaddu kër gi daf leen nekkul ñuy wax ci kaddoom ak président daayira daayira bi nga xamante ne mooy Moussa Malaw Diouf yal na yàlla yokk ak wéram sëriñ daam ne ne mi ngi fàttali ñëpp ndigal yi nga xamante ni mooy bawoo ci Cheikh Mouhamadou Mountakha jaar ci sëriñ Cheikh Mbacke mu jëwriñ Cheikh Mouhamadou ndigal yooyu képp koo xamante ni yaa ngi màggal si loo ca mën na nga ko indaale na nga ko daa defee boo ko mënee yokk na nga ko yokk boo ko mënta yokk li na nga ko wàññi sëriñ bi ne ndigal laa ngoog ñu ngi sant ñëpp di ñuy ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aoudu billahi min asheytaan rajim alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbok julli ni setan. Nang noo ngi leen nuyu ci barab yi len baxo nuyu. man nak ma ngi wax si turu sedi ak setadi. Togal toogal fi ku melne badjen ko nga xamanteni mo jité jiite daayira bi ak soxna momi ndong ak soxna sulo ak seigne Alaaji mi nga xamni ne mooy jëwriñ ak mi president daayira bi Ma wax si turu sedi ak setadi di wote si guddi giñ baxo def bu ne suba la màggal ngaam muy aljuma ji di ci wo mbok julli mbok talibi taalibe di si woo ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu am lante ak ñoom di demalante ak ñoom di dikkalante ak ñoom si guddi gi nga xamante ni moom la ñuy def di seeti seeti seeti suñu am seeti asketat yi ñu jëlee si woote bi nag seeti suñ Mahmoudan Jombe yi ak seeti suñ Modou Fatou yi ak seeti sëriñ Mbàkke Soxna Aan yi ak seeti soxna Mbeen Gaabu yi ak seeti suñ suñ Modou Lo Dagana yi nga xamante ni ren ñoom lañ tuddee guddi gi ñoom tam ñu ngi leen si wax baax ak seeti sëriñ Mbàkke Soxna Aan yi ak seeti sëñ Modou Fatou Xare yi ñoom ñëpp ñu ngi leen woo di wo suñ mbokk wa waa mbàddina turé yi ñoom ñëpp ñoo leen woo ci guddi di buñ ne suba la magal nga bu la neuf bi waxtaan ñu nak leen suñu abdou salam lo mo koy def inshallah allah ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah ausu billahi samiil alim min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ni ñu leen daan nuyoo at mu jot ci waxtu wi di leen nuyu nag ci kàddu sëriñ Modou May loo xalifa sëriñ Amsatou Lo di jël mu ni mi ngi nuyu jël nuyoo bi di ko jiital ci sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride di ko di di jiital sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride di ko di di di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba lépp ak naal yi mu naal yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom nee na itam nag di nuyu mbooleem buntu këri sëriñ Touba yëpp bàyyiwul kenn képp ku sant Mbàkke mi ngi lay nuyu te di la woo nag ci bis bu màgg bii nga xam ne mooy bisu sëriñ am Lo bis boobu nag mu ngi ciy woo itam képp koo xam ne mbokk la képp koo xam ne askanoo na ci ndaam baa nga bokk ci ndaam ak noo ci mën a bokke sëriñ bi nee na mi ngi la ciy woo di ci woo itam nag sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu te di ci woo itam Serigne Moustapha Lo mi nga xam ne mooy xalifa kër Cheikh Ibrahima Lo di ci wooy it njabootu Cheikh Ibrahima gépp di ci woo itam Serigne Cheikh Mbacke Lo ak njabootu kër sëñ Cheikh Lo gépp Serigne bi daal nee na bàyyiwul kenn di ci wooy itam ñi nga xam ne ñooy ay mbokki dëkkandoom la ko commencé ca Digaan Dala Saate Ngaabu Daaru Nayim Daaru Xafoor ba li tund wi lépp rek sëñ Mortaal dina ko dina ci jaaraat Serigne bi nee na bàyyiwul kenn bis sëriñ bi nee na amul lu dul moom moom njabootu kër seer am satuloo bis bi rekk lañ am ndax day bis boo xam ne bisub ndigal la bis la boo xam ne sëriñ tuubaa moo ko joxoon seex am sëtuloo ndax sëriñ tuubaa moo jóge woon Touba di dem njaareem ba mu ñëwee ba tollu ngaabu mu ñëw wàcc fii ci ngaabu ci tënk mu wàcc ci barab bi ñuy wax ngaabu sànqaay di garabu sànqaay gi ba mu fi wàccee itam ci waxtu mu am lu mu fa def ba mu ko fa defee mu continuer dem wuti njaareem ba mu àggee mu woo Seex ma Masàmba Mbàkke ba mu ñëw mu ni ko ana am sëtu mu ni ko am sëtu dafa dem dëkk bu ñuy wax kokki kàdd mu ni kon nañ ma wutal ndaw ñu woowali ma ko ba ñu war jëlee ndaw la mu war a fajar wooyi ko Seex am sëtu far ñu ñëw wax ko sëriñ bi ni ko Seex am sëtu agsi na mu ne kon day bi yalla mo gën bu nit ci la woyé cheikh am ak magam ja cheikh ma samba mbake ñu tok mu ni ko kat dama bëgg am mi demal ma ngaabu su démé itam ci barab bobé man euh, nek togon def na fa lo xamné ku ko xamone ding fa tok té do fa jog muk am ñu ni mu jox ko saaru alquran ni ko so démé ba ca garab ga nang ko tambalé fofa jëm bëc salum soko ko ba mu jeex na nga def fofé sa kër te dem di ma màggalal barab ba bis bu ne soo ko mënul ayu bis wu ne soo soo ko mënul weer wu ne su jamono xate at mu nekk bu mu jéeg loolee mooy ndigalu Serigne Touba li fi andi woon am Amsatu bi Seex am satu ñëwee itam ca loolee rek la nekkoon da ko daan màggal bis bu ne moom fu mu musaan fanaan su tukkee sax da koy màggal di ko màggal ba ni mu fi bàyyi ko Serigne Seex Lo taawam bu baax ba ñëw jël ko di ko màggal ba ni mu fi bàyyi ko Cheikh Ibrahima Lo màgget kan di ko màggal ba ni mu fi bàyyi ko mu ñëw ci seex Abdou Karim mu yor ko di ko màggal yàlla nag tey dafa jël bis boobee teg ko ci loxob sëriñ Modou May Lo muy xalifa kër sëñ Amsatu ànd kook rakkam yépp sëriñ Daam loo moom sëñ Cheikh ak njaboot gi yépp rek ñu ànd di doxal bis boobee ba ëgsi fii sëriñ bi nag di wax ni bis bi day bis la boo xam ne bisub baatin la ndax sëriñ Tuubaa ba mu fi yable ak ba muy joxe bis bi am na lu taxoon loola mooy lan mooy bëggoon a dimbali doomu aadama yi moo waral sëñ am satuloo ñëwoon fi ndax ba muy wax ak sëñ Masamba nee na ko Masamba làmp lu muy jariñ mu ni ko leeral mu ni ko am satooy tu làmpum ngaabu kon làmp boobee moo fi nekk ba tey di leeral kon nag sëriñ bi nee na su sañoon kenn ku ne bis bi su ñëwee ndax li bis bi di faj ak li bis bi di jariñ mu ne su la lim njariñ yi fii ñu toog waaye wóor na ne daal ku fi ñëw soo indee aajo dina faju wóor na ne daal ku fi ñëw soo dikkee sa bàkkaar di nga tàggoog moom wóor na ne daal ku fi ñëw te feebar andi la fi soo dikkee sa da nga saafaraw kon nag loolu rek doy na jóg pour ñëw ci bis bi kon loolu sëriñ bi nee na mi koy koy fàttaliwaat bu baax te itam di wax ne mboolem fu taalu bi nekk te aju ci kër gi loolu sag ñëw moom fii ak yaa ngi man loolu dalaa war ndax bis su dee amoo lu dul benn bis bis ba at ba at lay ñëw nga bokk ca kër ga bis ba ñëw nga sàggane ko yow kat sa taalibe des na kon taalibe yi nañ takku fuñ mën a ne nañ takku te waajal bis bi te xam ne bis bi mooy seen lépp su ëllëgee lépp mooy seen lépp kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp programme bi nag ni muy doxe mooy su ñu xëyee dañuy xëyee njàngum alxuraan ak xasida suñ demee ba ca wàllu ñetti waxtu ñu def bernde yi suñu demee ba ca guddi ga sëriñ xaadim Gueye mooy fanaane jàng yi ak sëriñ Ngañ Njaay kon lii mooy programme bis bi ñu di sëriñ bi di ci woo ñëpp di ci soññ ñëpp di ko di yéene xéewal yi ñëpp bokk ci ñu ngi mu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ndam Lo kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu gaawu fukki fan ci weeru décembre deux mille vingt deux fukki fan ak juróom ci weeru wolof fii ci Ngabou Sangaye Serigne Modou May Lo nag ànd ak njaboot gépp di ko yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwul fenn di ko yëgal nag maire dala bi nga xamee ni si moom mooy teeru gan ñi mboolem autorité yi. di ko yëgal itam mboolem waa Taïba Cekkeen gépp waa Njolofeen waa tubaa di sangu ak waa Touba Fall waa Daaru Naim waa Diigaan. di ko yëgal te mboolem waa Saate gépp bàyyiwul kenn mboolem autorités yi nga xamin si ñoo nekk si département bi di ko teg ci loxo loxob maire monsieur ba mu jottali ko ko mboolem responsable politique yëpp ak parti bu ñu mën di bokk moo xam opposition la moo xam pouvoir bi ñoom ñëpp sëriñ bi ma ngi leen ko yëgal préfet département bu Mbàkke Bawal sëriñ baa ngi ko yëgal waa Daaru Xafoor waa kër Ibra Yaasin wala ak mboolem taalib aju ci kër gi nag ak ku man di nekk seen bunt ci kër sëriñ Amsatu Lo moo xam taalib yi nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñëpp sëriñ bi ma ngi leen koy yëgal ci turóoteem ki nga xamee ni fii mooy sëriñ Abdou Karim Lo ak mboolem sitat yep nenañu ñong koy yëgal ñi nga xamanteni ni ñom ño bok ben waccu waccu bis bi muy mboolem siti Serigne modlo Isa ak mboolem siti Cheikh Ibrahima Lo bayiwuñu kenn bis bi niñ ko waxe jàng alquran ak qasida ak bernde ak ziar insha allah Serigne Khadim Gueye bu Touba ak Serigne ganjay ñoo koy fanaanee jàng ba bët set Serigne bi ma ngi séntu ñep di sant ñep di ñaan ku ci tew yàlla faj sa ci barkab Serigne Touba barkab Serigne amsatullo wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu تعالى لشي ربا فؤادي وأخناني وأكرم بي ربا بيك غنيت اليوم عبدا لوبي هديما دواما للي جبت إبابي قد غنيت اليوم عبدا بشكري وان يقوم الآل ونال وصبا نبس لخال الله عبدا مراتلا لسجن الأكيم أن جنابي إذا صبا